gan gi Mamadou Mbodj Diouf bokk ci bureau politique bu parti socialiste nekk itam directeur projet de modernisation des dara ñu ngi lay nuyu Mamadou Mbodj Diouf am mbégte dalal la ci Rewmi FM Euh, Fatou maa ngi lay fay di auditeur auditeurs u Rewmi FM yëpp. jërëjëf euh, ñu tàmbali ak euh, parti socialiste wala politique tey ban taxawaay le PS am ci biir Benno Bokk Yaakaar ci jamono ji nga xamee ni président Macky Sall mi ngi rafetlu àndam yu bees yi notamment ak Idriss Seck ñu nekk ci jamono yu mburoog soo waaye PS feeñu ci benn yoon. waaw mën nañ jàpp ne rek PS moo ngi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar. de des aussi doon euh, allié wu président Macky Sall euh, euh, ci cadre coalition benn Bokk Yaakaar bon foog naa ne li ñuy xaar ci pees aussi taxawaay boobu en tout cas moom lañ jàpp ne moom la am ba tey ci biir coalition bi mooy taxawaay bi mu amoon en ba ñuy fal Macky Sall. Mhm. engagement yi jëloo ak moom. foog naa ne ci loolu lañ nekk ba tey c'est vrai que nag am na lu bees lu xew ci coalition bi. Euh, avant coalition Mburok soow bu Idrissa Seck je crois que am na ay responsable yu jógee yeneen parti surtout PDS ñëw fekk si ñu dugg ñu ci Benno nekk dans la majorité présidentielle je crois que ci même cadre boobu ci la réew mi aussi ñëw avec le président Idrissa sec euh, dugg si dans la majorité présidentielle indaal une particulière une particularité nag parce que ba mu ñëwee waxul Benno waxul majorité dafa ne coalition Mburok Sow et je apparemment euh, président de la République aussi nangu na ko euh, foofu pour pour pour wax ne rek euh, xëy na soo déggee euh, ñuy ñuy ñuy ñuy tudd peut-être coalition boobu. Hmm. mooy fësal buñ ko fësal. te fësal boobu du lenn lu dul benn volonté bu ñu sentir ci waa réew mi pour ñu gën leen pour ñu gën leen bàyyee xel ci kaw lan ci kaw. Euh, activités yi nga xamante ne euh, président de la république moo ngi koy mëne particulièrement tournée économique yi mu commencé fépp foo xamante ne jàpp nañ ne réew mi am na fa as tuuti ay nit danañ fexe ba euh, en tout cas fësal loolu que nit gis ne réew mi am na fi et que loolu à travers seen couleurs yu orange yooyu gis nañ image yi ci télé yi ak dégg nañ leen. Mm. donc xëy na looloo tax ñu gën di wax coalition Mbuur ak Soow moom. et effectivement président de la république. Euh, affaire boobu euh, wane na gis na ko te bàyyi na ko xel. Hmm. donc loolu pour diir que ne loolu suñ demee ba am ci ba ba ba gis ko ça veut dire que réew mi ba mu ñëwee dafa ne comme man dama dellu siwaat am na ñu ma fi fekkoon. Hmm. te xëy na parti yu am maanaa yu am solo lañu man su ma ñëwee damay indi suma stratégie bu bees stratégie boobu moo tax mu différencier wu wuuteeg euh, di ña fa nekkoon doon def wala ci liñ nekk. Eh, xëy na looloo tax ñu leen di tudd. taxawaay taxawaay bi secrétaire général am aussi sànq waxuñu ko waaye lu ci am solo la ndax euh, jamono yële gisoon nañ Idrissa Seck fu Macky Sall dem mi ngi ci wetam euh, loola it euh, xëy na moo bokk na ci li gën a fësal ànd bi diggante réew mi ak APR est-ce que du looloo manqué waa waa waa itam. waaw loolu dama ne xëy na stratégie de différenciation la rek parce que ku ñëw bees moom foog nga indaale lu bees. Mm. soo bëggee ñu bàyyi la xel donc loolu la réew mi def mais loolu li may wax rek mooy. Euh, xëy na aussi euh, parti traditionnel yi lu mel ni pes dañu xaw nelaw suñu direction yi dañu dañu nelaw ndax euh, peut-être avec la routine ak yàggaay bi dem na ba peut-être xëy na effort yi nga xamante ne moom la ñu waroon def en tout cas ñun militant loolu lañ doon xaar si ñoom parce que nag bugguñu doon parti bi gën a gàccaay ci biir coalition bi nekkul ne juste parce que dañuy jël coalition bi teg ko suñu suñu suñu su wala suñu xef hmm. mais parce que dañu jàpp ne nit ki ci loo nekk fexeel ba bu ci gën a gàccaay fexeel surtout nga bokk ak ay say nawle. Hmm. fexeel nga gën ci fës. bon loolu la sentirul en tout cas suñu parti. dégg nañu donc réew mi su ñëwee di ko def ñu hmm. defee ñun waroon que réew mi nag ëppale wuñu dara. Hmm. ñu bokk ci nag gën koy yàgg ci biir gouvernement bi gën koy yàgg ci biir coalition bi. donc lu ñu mën a def benn ñun rañ ko mën a def fukk. donc xëy na ñun peut loolu la ñu en tant que militant parce que neexuñu nag euh, ñuy tudd yeneen i parti ci biir coalition bi alors que parti socialiste. ak euh, héritage bi nga xamante ne ñëpp xamel nañu ko ak li nga xam ne def nañ ko ci biir réew mi ak suñu dayu dayoo ak fi nga xam ne peut-être foofu la nit ñi jàpp ne foofu la PS euh, nekk wala foofu la waroon a tax féet waroon nekk. Mm. ñun suñu demee ba gis ñuy néewal. wala di ñuy tuuteel ndax kenn déggatuñu wala kenn gisatuñu loolu daf ñuy métti. Mm. justement tey nu PS def déggoon nañu jamono yële ay euh, coow ci biir ndax ñi buggoon ñu wéyal yeesal gi muy renouvellement gi tey ana fan ngeen toll ci loola. waaw renouvellement yooyu nag euh, mën nañ jàpp ne malheureusement dafa bloqué carrément euh, parce que président Ousmane Tanor Dieng en 2018 euh, parce que il faut que ñu xam ne mandat wu président Ousmane Tanor jeexoon na depuis 2018 comme dañu nekkoon ci contexte électoral mënuñu woon def congrès mënuñu woon jeexal renouvellement yi ñu reporté ñu ñu reporté woon ko hmm. prolongé mandat wu secrétaire général ak mandat wu yeneen responsable yépp par la suite suñu secrétaire général dëddu àdduna ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana mais suñ demee ba weesu loolu surtout que euh, fii ak euh, euh, quelques jours fii quinze je pense juillet ñoo ngi jublu ci ñaareelu anniversaire u kii génn àdduna boobu mm-hmm. secrétaire général Ousmane Tanor dafa jot quand même que renouvellement yi ñu jeex ko mën a dem congrès suñ demee congrès fal secrétaire général bu bees fal ay instance yu yees su boobaa ñu mën am ay orientation yu bees gën a mën a ñoŋalaat parti bi malheureusement processus boobu dafa bloqué wu te loolu su bloqué woo c'est parce que direction bi amul volonté pour que processus boobu antu direction bi Aminata euh, Mbengue Ndiaye moom fa nekk direction bi amul amul volonté ah. pour que ñu dem ci congrès mën a fal secrétaire général bu dafa nekk di bëgg a ngoy ci ci bi nga ne ma ni Mbadou dafa bëgg a ngoy ci poste secrétaire général bi bon du ma ne dafa bëgg a ngoy parce que xëy na Euh, ku xam la présidente Aminata gëw ma ne dina nekk ci ay di di ay poste ki responsabilité koo xamante ne collaboré naag président Diouf euh, def lu nekk secretaire euh, secrétaire général Ousmane donc gëw ma ne ay mooy ci ay poste war na mën a doon ay yitteem mais xëy na peut-être manque de réaction le manque de réactivité mooy en tout cas li nga xamante en tout cas ñoo ngi koy xaar ci moom bëgg nañ affaire bi gën a gaaw bëgg nañ affaire bi gën a efficace malheureusement du loolu lañuy ñuy bon man du ma ne moom rek moom mooy moom moom moom moom faute bi ci moom la. Hmm. parce que euh, moom xëy na moo nekk secrétaire général du parti mais de ko am ay yeneen i responsable xëy na man sax man <laughs> euh, ci laa. am nga ci responsabilité direction parti bi la bokk. Hmm. mais dama jàpp ne daal euh, am na lu militant yi doon xaar ci moom ci wàllum renouvellement yooyu mooy mu jeexal ko jusqu'à présent bougé wul te volonté boobu nga xam ne moom la secretaire général. Ousmane Tanor Dieng yal na ko yàlla yëm doon manifester pour que renouvellement yooyu jeex ñu dem ci congrès volonté boobu sentiruñ ko ci direction parti bi sentiruñ ko surtout suñu secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye. ndax mën nañ caa jàpp ne Aminata Mbengue Ndiaye mënta yor parti bi kon. non duma ko wax parce que euh, ku suivre parcours Aminata Mbengue Ndiaye xam nga ne euh, xarañ la xam nga ne aussi politique euh, vraiment xam na ci lu bari surtout que accompagné na président Abdou Diouf jàng naa moom lu baree bari. Euh, accompagne na secrétaire général Ousmane Tanor Dieng xëy na foofu aussi am na apport bu mag euh, bu mu ko defal surtout nag du côté de sa loyauté de sa mm. fidélité loolu kenn naataableetu ko man gëm naa ne mën na ko mais xëy na peut-être euh, en tout cas réactivité bi comme ni ma ko waxee mais surtout entourage bi la direction du parti parce que du moom rek mm. peut-être enjeu bi nga xamante ne moom la ñu waroon a mesurer ba gis ne lii loo xamante ne dañ ko war a def ci lu gaaw lu jàmp peut-être enjeu boobu moom la desee gis et xëy na peut-être que directoire bi aussi jàppale wuñ ko pour que loolu moom mu mën ko gis gëm ne euh, renouveler parti bi avant euh, renouveler instance yi avantage yu bi la et dinañu gën a permettre ñun ñu gën a mën a fësal parti bi ci landerneau politique bi et que ñu gën a mën a taxaw tamit joxul dëgg li nga xamante ne moom moo nekk suñu kanam muy échéance électorale yeeg mhm. euh, voilà ak tout ce qui concerne la vie du parti Euh, malheureusement du constat boobu la ñu la ñu hmm. def. d'accord est-ce que lii tamit du jox dëgg ñi doon wax ne PS bu duggee ci euh, nguur gi notamment benn bokk yaakaar du ko jikk non loolu. ndax tey li nga fi wax nii parti bi dafa mel ni luy nelaw. Hmm, waaw no loolu gëwuma ne looloo tax muy nelaw parce que yàgg nañ nekk ci coalition bi te li ñu hmm. war a def ñoo ngi koy def euh, militants yi ñoo décidé woon ne dañuy. Euh, jàppale Macky Sall en 2012 mu falu et que après ñu gérer moom et je crois que ci dynamique boobu lañ nekk ba tey. donc foog naa ne loolu euh, dara dañu ci xëy na peut-être euh, ñun li ñuy gën a kaas du rek que parti bi gën a doon doon doon bàyyi faalu coalition benn Bokk Yaakaar. Hmm. mais dañu jàpp ne nit ki soo nekkee ci dara da nga ciy dem ba jeex takk parce que ci ci ci dem ba jeex takk boobu ci ngay dundalee parti bi. ci ngay fësalee parti bi ci ngay wane ne parti bi du parti bu ndaw parti bu mag la. Mm-hmm. et surtout respectabilité bi nga xamante ne suñu parti muy parti socialiste ak euh, héritage bi nga xamante ne yëpp yenu na ko foofu lañ foofu lay gën a mën a amee respectabilité boobu. Mm-hmm. et dinañu permettre aussi au niveau de la base suñu responsable yi nga xam ne dañu nekk foofu seen i naataangoo ci biir coalition benn Bokk Yaakaar ñu doon ay alliés mais foofu lañ leen di gën a nawee foofu lañ ñu gën a respecté. Mm-hmm. opinion publique bi aussi ci visibilité boobu. ak suñu yëngu-yëngu yooyu la ñuy gën a nawee lu ñuy gën a amee ci ñun yaakaar donc man dama jàpp ne parti bi su yëngatu ci benn benn benn bokk yaakaar. di hmm. yëngal ay instance am du rek parce que dafa euh, war a wane ne moom moo war a yenu benn bokk yaakaar mais dafa war a wane ne maa ngi euh, ci laa nekk ci laa bokk te gënuma cee gàccaay. d'accord léegi ñu wax ci xam hmm. nañ ne. politique avant tout action la. Mhm. action yooyu la ñu xaar ci direction parti socialiste. d' accord léegi ñu wax ci élection yi ñu dëgmal notamment locales yi naka nga jàpp ne noonu la ci PS war a demee euh, ndax coow tàmbali naa juddu ci locales yi te yegg seegul fu mel ni Kaffrine Abdoulaye Wilane moo fay maire bëgga toogaat waaye gis nañ ni tey am na wujj bu bees bu bokk sax ci gouvernement bi muy Ablaye Sow feneen ak feneen xëy na ñàkku leen situation yu ni mel euh, président Sall jamono jooju di ci ay liste parallèle loola yëpp lu ciy sa xalaat. waaw xam nga li ma ci bëgg wax mooy xam nga coalition Benno Bokk Yaakaar parce que ci lañ bokk nag euh, ba tey euh, discussion yi guñ pour ñu mën a xam euh, ban taxawaay la am ci local yi di ñëw mais toujours et il que foog naa ne ku ci nekk chapelle politique bu nekk parti politique bu nekk yaa ngi doxal say waxtaan ci sa biir ñun suñu sa suñu commission nationale électorale semaine bu nekk dina réunir ñu teg sur la table avancement yi mais surtout discuter orientation yi nga xam ne moom lañ namm moom la militants yi namm euh, pour revenir un peu exemple bi nga joxe suñu camarade Abdoulaye Wilane euh, vraiment ma koy souhaiter tout le tout le tout le bonheur possible et surtout di souhaiter que mu remplir à la tête de sa mairie mais man bëgguma woon focaliser wu sur un camarade en particulier mm. parce que certes y a un débat boo xam ne posé wu na à Kaffrine mais ailleurs aussi euh, d'autres débats se posent Kaffrine suñu camarade Abdoulaye Wilane dafa bëgg a rempiler mais feneen aussi soo fa demee di fekk des camarades yoo xam ne doonuñu woon maire. Hmm. te namm nañ élection locale yi di ñëw ñu doon ko. donc euh, foog naa ne lépp solo mooy na ñu jàpp ne euh, dañu nekk ci biir coalition et surtout dañu war a jox une chance à la discussion que nit ñi mën a waxtaan mais waxtaan boobu que mu bañ a doon au sommet que leader yi décider ñëw imposer ñu ko à la base. nañu bàyyi kon président li mu bëgg a def du noonu nga jàpp waxtaan seen biir hmm. juboo suñ mën a am des listes bennoo muy noonu su ko mënta nekk ñu bàyyi bañ parti bu nekk wala formation bu nekk mu dem ak bannière boppam loolu yëpp contribution lay doon yoo xam ne dañ koy verser laat euh, loolu wute na ak li président Macky Sall bëgg ndax moom moom bëggul liste parallèle waaw mënul dox hmm. te après day tax peut-être dañu gën a féewale et à la limite mën nañu exposer à des votes sanctions loolu dañ ko éviter d'accord ñu jeexal très rapidement ak euh, daara yi daara yi ñu moderniser mu méngoog jamono yow yaa jiite projet bi nga xam ni moom moo ko ñeel muy PAMOD ana fu ngeen toll ci liggéey bi. waaw daara yi foog naa ne déjà mënuñu def lu dul euh, euh, di gërëm et surtout di remercier le président de la République parce que il y deux semaines la inauguré daara moderne région de Matam yi daara moderne non public de Kanel ak bu daara public bu Ranérou. et macha allah euh, loolu euh, signal bu bu am doole la ci ci acteurs yi parce que c'est vrai que nag projet bi euh, vraiment yàggoon nañ ko xaar ci loolu su demee moom ba mu décider moom moo koy inaugurer boppam loolu symbole la e foog naa acteurs yëpp gis nañ loolu te ñëpp rafetlu nañ ko may wax ne rek avant sax inauguration boobu mën nañ jàpp ne daara yu bari ubbi nañ en novembre deux mille vingt donc à la rentrée de de, de novembre et que xale yi ñoo ngi ci biir daara yi surtout daara publique yi mais aussi daara non publique yi donc mën nañ jàpp ne euh, projet bi bi ci ëppoon solo presque euh, def nañ ko donc jafe-jafe yu bëri dépassé nañ leen ba fi mu toll nii ñoo ngi waaj a boucler la première phase euh, may peut-être xëy na rek di di wax ne su fekkee ne am na quelque part yoo xamante ne gëm na gis nañ ne peut-être war nañ ko Euh, defaraat mooy daara yi nga xamante ne construction yi pareeguñ te loolu li ko indi mën nañ ko comprendre parce que euh, entreprise yi daf ci am ñoo xamante ne xëy na dañu demoon ba ay jafe-jafe tële euh, donc finalement marché yi nga xam nañ leen joxoon nañ ko mujj a nangu pour maintenant jox ko yeneen entreprise mm-hmm. mais yooyu yëpp fi mu toll nii mën nañ jàpp ne sori nañ ci ci procédure yi pour que vraiment ñu mën a jeexal tabaxu daara yooyu muy les régions de Kaffrine les de Kaffrine et Kolda am na ci entreprise yoo xamante aussi ñoo ngi xaw a sooxe tuuti lu jëm ci côté peut-être région de Diourbel mais foofu aussi ñoo ngi soññ entreprise yi pour ñu jeexal fii ak en tout cas euh, kii fin deux mille vingt et un mm-hmm. pour au moins première phase bi ñu boucler ko mën a jàll ci phase phase deuxième phase bi parce que nag fi mu toll nii demande bi quand même am na doole fépp ñoo ngi ñuy demander pour ñu moderniser leen seen daara mm. muy daara cosaan yi nga xam ne dañu nangu et ñu bëri d'ailleurs fekk si processus bi dugg ci adhéré ci pour mën a am ay daara modèle ak yenn gox-goxaan yi nga xamante ne xëy na euh, njàngum alxuraan cosaan dafa woon te ñoom ñëpp ñu namm ñu tabaxal leen ay daara moderne public euh, daara moderne communautaire ci seen i gox-goxaan pour que seen i doom mën fa jàngee euh, mën nañ jàpp ne daal grosso modo mhm. li ëppoon solo ci ci ci projet bi mën naa ne yemb na volet qualité bi maanaam li jëm ci wàll wàllum njàngale meek formation yeeg euh, livres yi ñuy tabax yooyu yëpp presque li ci ëpp solo euh, yemb na euh, volet gouvernance bi maanaam accompagnement bi nga xam ne moom la ñu waroog daara yi mhm. surtout waxtu bi mooy jumtuwaay bi nga xamante ne moom lañ bëgg a taxawal pour mën di continuer financer daara yi mhm. waxtu boobu aussi étude bi biñ ci doon def presque yemb na léegi ñu boucler ko jërëjëf Mamadou Mbodj mhm. moom su paree Euh, bureau yi ñu fay def ak appartement yi ñu fay def location euh, koppar yi ñu jëlee ci location yooyu mhm. mën ko delloo ci daara yi subventionné ko daara yi donc mën nañ ne euh, fi mu toll nii daal li ci ëpp solo li ci ëppoon solo en tout cas ci projet bi mhm. yemb na te li des daal mooy as tuut yi nga xamante ne mooy construction yi ñu jeexaleen fii ak njeextalu at bi mhm. et vraiment ñu boucler phase pilote bi pour mën a jàll ci deuxième phase. jërëjëf Mamadou Mbodj Diouf grosso modo euh, mën nañ jàpp ne daal. Euh, ngi dox xaw nañ satisfaisant. Mhm. Euh, di ñaan yàlla ñu mën ko jeexal ak jàmm fii ak fin 2021. ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM nga bokk ci bureau politique bu parti socialiste jiite itam PAMOD di projet bi ñeel yeesalaat daara yi ba mu méngoo ak jamono.